bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen ziar di leen ñaanal di ko sàkku si yéena ah. mel ni nag tey ñu ngi fi nga xam ne nii moom moo di kër madame Diouf di Louis Senghor ah c'est ma Macoumba Diouf li ñu fendi nag lenn la euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Teranga production te jib seen nekk si bopp bi ah ànd ak Thierno Sall DG ñoom ñoo jël drapeau tuddee ko ko pour le 18 mai 2023 fële ca arène nationale combat bi nag ñaar ñi koy bëree moom moo di Seck Ndaanaan ak Aliou Fat Fat mooy combat spécialu Jarade ak Albouri kon boo bëggee dégg-dégg daal tey nag loolu moo ñu indi fii mu mel ni kon man ak Lamine ak ñoom seex Cheikh Seye ngi fi gaa yëpp ah Mohamed ak Mansour na ci ginnaaw Jib Seen a ngi ni toog hmm, Louis a ngi ni toog li may def rek mooy jox leen kàddu gi yaakaar naa mën naa jëkke si Jib laaj ko moom intention bi lu ko waral ba tax mu jël Lewis tudde ko làmb parce que Lewis tamit ma fàttali leen ne promotrice la parce que dafa yor structure boppam bu ñuy wax Senghor production structure boobu yaakaar naa ne bari na mbër yu moom yu nga xam ne dem nañ itali te ci moom la ñu jaare mu yàgg faa dem di fa tëgg ay événement yu nga xam ne yu am solo la ba yaakaar naa ne sax mu ngi waajaat ngir delluwaat Europe def benn tournée boo xam ne yaakaar naa Europe bi yëpp dana ko wër ci ay dëkk yu bare bari ngir lan wane fa culture Sénégal di naa jib loolu la xool ba ne kon kii jigéen la juy góorgóorlu jar naa delloo njukkal mais tamit ñuy nuy borom këram di docteur Macoumba Diouf borom lat menge waaw boroom siin saalum sax laay wax waaw docteur suñu xarit jib maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax euh, comme ni mag la ko mën naa la ko laaj rek intention bi li tax nga tudde Lewis bés pour le 18 mai mu tombeek tamit feetu chrétien yi Assomption te Lewis ku ne xam ne foofu la bokk. waaw Bakar ñu ngi lay fay di nuyu ñëpp ah mm-hmm. di nuyu waa Yaraax bi ñu jiital ci nuyoo bi nag waa docteur Macoumba kilifa gi waaw di ci teg Louise bien vrai comme ni nga ko waxee yàgg nañ fréquenté waaye boobu xam naa ay côté deux mille dix huit deux yàgg nañ dem foofu dem seetaan làmb boobu waaw ngoyee waaw ak loolu seeseen yëpp dem nañ fa suma juumul mais am na taabo bu ñu ko tuddee woon yaa ngi rappelé te yowoon nañ fa ak ñun man ak yow ak Lamine ñoo àndoon waaw donc ñaaga fréquenté la peut être nag mënantewuñ comme ni mu leen mel mais yàgg naa fa dem yàgg nañ kii mu nekk góor góorlu boobu ñun xamuloon sax nañ def làmb mais bu ñu demoon foofu dañ doon presque mbapat bi ñu doon seetaan ci moom noonu benn yoon lañ ko doon seetaan ci ci at bi ndax bëriwoon ñu luñ doon kii di seetaan làmb te gi nga seen làmp ñoom ak suñu làmb bool amoon différence mu doon am animation di am lépp bu ñu fa jógoon presque dañuy marqué donc nag suñ ko jëlee tey dara jaar ko bés bi day doon loo xamante ne lu rafet la ci moom ci ñun daal ndax booboo ñun mësuñu yaakaar lii sax waaw ñu ngi koy félicité daal xam nga di ko wax ne ko bés bi bésam la waaw dinañu docteur bu baax a baax a baax waaw. en tant que jeune comme ni nga ko waxee da nga daan dem dëkkam ñu daan daan fa ànd di seetaan ay làmb ak yu mel kii noonu nga yàgg ko fréquenté tey ngeen nga toog ba nekk promoteur comme moom xëy tudde ko làmb loo gis ci moom ba tax nga ne dama koy delloo njukkal pour parce que boo xoolee moom ci ci côté ay sentiment daan na bégal ay nit yàgg nañu bégal sax comme boo ñu xoolee boo fa demaa da ngay seetaan da nga daan gis mbër yu bëri nga daan gis Dakar nii foofu nga leen daan fréquenté su ma jumul man ay ténor yu bëri ci mbapat ci lutte simple foofu la daan njëkk a gisee wala njëkk leen seetaan ñuy bëri donc kooku nag tey suñ ko tuddee ci làmb dara rek mérite la ndax yàgg na jël xaalisam def ci làmb soit mu gañee ko wala mu perdre ko wala mu investir ci keneen gis ci boppam wala moom mu gis ci boppam kon bés yu mel ni ñoom dañuy day baax ñu leen ci dara jàll et bëgg nañ xam nga mbokkam yëpp ñu leen ci woo ko moom ñu leen di woowee mm. ñu xam ne moom xam nit la koo xamante ni ku ñu war di dara jàll à tout moment te lii commencement la bëgg nañu à tout moment chaque jour chaque année ñu koy def bu dee benn yoon sax ñu indi ko dara ko bis daal waaw. daal le 18 mai moom incha waaw. drapeau Marie Louise madame Diouf mm. waaw. waa waaw moom mooy choisir rek ndax moom moom am nañ accord ak moom démb ci guddi suma juumul waaw man ak moom am nañ accord moom ba jot na avance ak lépp instant bi dañuy xaar rek waaw ñu def diwo moom ak kenn am na ku ñu jot a contact ñaar ñooñ sax mais comme comme keeguñu ma ko bëgguma bëgguma ko tudd waaw ndax dafay xalaat moo am empêchement ci ñaari ñaari femmes yi nga tudd ak ak kee waaye comme keeku ñu bëggaguma ci prononcé quoi mais moom am nañu accord ak moom te incha allah dina am benn duo moom ak benn woykatu séeréer soit nag dama xamul ñaar ñooñu kan la ciy doon mais incha allah dinañ ko andil culture séeréer daal bëgg nañ ko bu baax a baax a waaw. borom këram tamit docteur parce comme lu ma wax ñu doon fekkee kii Louise lañ ko doon fekkee foofu boobu buñ demoon kii nga boo ñëwoon sax Korité lañ leen njëkk a wax ndax dañu dem fële làmb ca waaw loolu lañ loolu bokkoon na ci luy gën a nekk suñu intention ndax lu ma la wax terrain yu bëri foofu lañ leen doon gisee te boo fa demee lamb yi ngay seetaan foofu da ngay xam ne lamb yi ñuy seetaan foofu ak lamb yi yi bii am côté bool bi amoon na différence carrément lamb yi doo di gis dara day neex ba pare day am culture am lépp ba pare doo gis violence waaw kon docteur ñu ngi koy nuyu bu baax a baax waaw. am solo de. loo ci yokk dama non jox waaw kon defe naa dégg ngeen li la li li jib seen wax am na solo defe naa ne jamono muy ah, ba muy dem lu seen boobu da jàng école. Hmm. waaw boobu boobu boobu est-ce que mii na gën a Dakar à cent pour cent yaakaaruma ko de kon defe naa ne affaire yi moom lu yàgg dëgg la quoi kilifa gi tam ñu ngi koy nuyu tur bi Abdou Aziz ah, ñu ngi lay ziar yow borom mbaax nga madame Diouf yow moom dama lay teel nga wax wala ma bàyyi la nga téye rek. aca bàyyil ma téel la Louis maa ngi lay ziar madame Diouf. maa mm-hmm. maa ngi lay ziare bu baax di di la nuyu di nuyu équipe bi yëpp. Mm-hmm. di sant aussi waa Teranga production. Mm-hmm. ndax lii moom aw ma wax daal ak ngaram kontaan naa lool kontaan naa lool. ndax nit bu ñëwee ne tudde naa la lii rek kooku amatoo fayam daal waaw donc vraiment sama xol sedd na ci tur bi ci daraapo bi kontaan naa lool di gërëm aussi sama jëkkër ki nga xam ne mooy docteur Macoumba juf ndax su ma toogee ba ngeen may tuddee drapeau vraiment mhm. lépp moom la mhm. ndax xam nga ne bu ne woon déedéet kon loolu yëpp du sotti mhm. mais vraiment gis nga ko yaakaar naa yaa wax ak moom ne ko dañu bëgg a defal li Louise delloo ko njukkal mu ne la waaw man surprise la pour man ma kontaan loolu nag ci surprise bi parce que comme ni nga ko waxee mm-hmm. làmb dafa nekk loo xam ne dama koo bëgg mu sax ci sama xol nekk ci sama deret mm-hmm. ndax sama frère yu bari mm-hmm. dañuy bëre sama pàpp nag xam nga moom mooy moo jël ndam li <laughs> sa papa mooy kenn <laughs> Yaxya Joob Yékini xam nga kooku ku mu nekk baayam sama xarit di Eumeu Sène Ah. kon xam nga ne kay sama doom di franc hmm. kon nu may def dama bëgg làmb dama ko dama ko bëgg di ko dund hmm. ñoom Ablaye Sarr hmm. Robert Jal Diagne Djilas Ousmane Ndiaye Diouroup loolu yëpp dafa nekk euh, ñoo xam ne vraiment yàgg naa di dund ak ñoom làmb daal ba fu ñu dem rek champion la ñu woon. fu ñu dem rek ma topp seen ginnaaw. di leen seetaan mais dàqu ñu ma woon mboro nag. Hmm. <laughs> dàqu ñu ma woon mboro de. Uh-huh. Hmm. may nuyu kii nag sama jarbaat la Abdou Aziz. Abdou di jarbaatu Makumba Diouf. donc moom mu nekk ku baax nag. Hmm. ndax gis nga ko nii. mënuma ko kii daal. di gërëm fam bi. famille Ndioufène sama jëkkër yi sama njëkk yi samay goro mère Fat maa ngi koy gërëm aussi di ko sant di gërëm sama chéri yi yëpp képp ko sant Diouf rekk tudde naa la bés bi Ndioufène yi may nuyu aussi sama famille waa Ngoye sama grand frère yi ñoom Pierre Robert ñooñu yëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ne nag bu kenn des ngoye bu kenn des laat mengi mhm. bu kenn des Diofior Fimela laalu Sessène mhm. xam naa duma ko sax mën a kii mais région de Fatick yëpp ci région de Kaolack ak les quatorze yëpp maa ngi leen di woo. ba Mbour géej ba Mbour man pour ñu dar ma ah yow xool ma rek ndax niroo naa la ku ñu dul dar <laughs> est-ce que naa la ko ñu dul dara hmm? sama pap Yaxya Jóob ah, xam nga ne buñ ko ne sa doom la hmm. kooku amul sax waa yéen kay bàyyi ba bés ba rek amatam ma ne bàyyi leen ba bés ba rek du ma wax daal <laughs> mais daal maa ngi woo ñépp képp kuy amateur hmm. képp koo xam ne yaa ngi ci làmb ji ku bëggul làmb sax mm-hmm. maa ngi koy woo mm-hmm. ndax làmb dafa nekk loo xam ne mm-hmm. dañ ko war a war a wone lan mooy làmb làmb du xuloo du xeex làmb culture la moo tax man làmb traditionnel laay def nga xam ne loolu mooy cosaan làmb dafa am ni nga ciy dugge ñu ngi ciy bàqoo ni ngay doxe sax dafa am ci làmb loolu mooy cosaan dëgg te dafa am solo waruñu koo fàtte moo tax bés ba daal maa ngi wax mbër yi képp ko ciy ñëw ak say supporter vraiment maa ngi leen di ñaan ñu indaale làmb ndax làmb cosaan la làmb du xuloo du xeex làmb fecc la bàqu tàngal sa yaram wane sa doole mën sa morom daan loolu mooy làmp danga kontaan ku lay seetaan di kontaan ñu lay xool di kontaan donc man daal yaakaar naa ne loolu daal la bëggoon wax. bëggoon wax daal waaw. Jibi Sène boo amoon loo koy wax moom tamit lan lay doon. Jibi Sène moom. wax dëgg dama kontaan ci moom ndax su may tegg làmb muy jóg di seetaan ci sama làmb boobu mu xool ne loolu ma ko doon bégale <laughs> loolu ma doon def mu ci kontaan gis ne am na ñeneen ñu ci doon kontaan mu toog ba tey xalaat ne man li ma doon def daf ma ko war a defal ndax ma bég kooku aw ngërëmam daal vraiment jibi maa lay gërëm di la sant kontaanam na wo lool as olof ake mbaage ngot mm-hmm. waaw ah, fook in laya séeréer mm-hmm. ndaa koy andiye kontaanam na wo xeeña sabuta na wo mm-hmm. parce que ka ref maak ka magin na yo ka jeg na doole yo fi ana o kiino xe yaaga waage bota waaga pi a gara fi anidong kaaga yombi donc vraiment merci beaucoup merci mais xoyaa itam koy ox xuref na o sereer rek laye rek Senghor production dana fop owey ngoya nuun nu ngarid koy ndam no bes fene xarito maago xa xa teɓo tokoro papo fop me xoya nuun Marie Agnès feke o ndeɓes maxey moom itam o ndeɓeso mbaaxo waaw fu mu nekk nii xam naa lu mu liggéey ci at bi yëpp dina ma ko jox. dina ma ko jox pour bés bi. <laughs> <laughs> mais sa drapeau ñaari mbër ñaari mbër koy bëree moom ku ko gagné. sama bi ñaari mbër yu koy bëre. ku ko sekk ndaanaan ak Aliou Fat Fat. kooku moom damaa bëgg mu jiitu ci convoi bi bi nga xam ne mooy dem Fatick lamb Ndefleng bi. Ah. waaw ku gagné sama drapeau. foofu nga koy invité foofu nga koy bëggale Fatick. Fatick laa koy bégale. le 27 le 27. ci drapeau docteur ci drapeau docteur Macoumba Diouf fa laa koy bëgg. te dama bëgg ñëw. waaw indaale sama drapeau. waaw. ànd ak waa Teranga production. waa Teranga production. waaw def seen ay ay kaar. ay ñëw nag ñëw dooleel si la. ma xam nag kan mooy docteur Macoumba Diouf ndax ñaari bés yooyu dina kii de. waaw 18 ak 27. 18 ak 27. waaw. du yomb du yomb du yomb de ndakaaru ba Fatick ndakaaru ba Fatick uh-huh. ah baab uh-huh. yaxi job yëkkin xajaam foofu naxa ba yof coodatinaaxum fop uh-huh. joxaat jëlaat naa lam bi yëpp teg ko ci loxo yëkkin le 18 ndax mooy sama baay aw ma kenn ku dul moom mm-hmm. waaw yéen yëpp sama càmmiñ yeeg ñëpp daal mm-hmm. jox naa leen lépp maa ngi Keba Kanté sa càmm yaa ngi koy woo Kéba Kanté moom. waaw wax dëgg yàlla maa ngi koy woo. le 18 le 18. maa ngi koy woo le 18 di ko woo le 27. ndax yëf yi moom. Mm-hmm. sant yàlla la daal. Mm-hmm. sant yàlla la. Mm-hmm. ñaari bés yooyu daal sama bés na te maa ngi leen ci ciy woo ñun yéen yëpp. Babacar 18 ans 20 27 ans. te bu kenn tardé. ñun ak waaw. arène nationale. Mmh. stade Massène jeex na Fatick. Mmh. dakaar Fatick. Dakar Fatick incha allah. incha allah léegi bi euh, yaakaar na loolu moo ci des ani drapeau bi Cheikh voilà. waaw waaw waaw waaw attends wax nga dëgg bien sûr am nga ci loolu bu amul bu baax. xam nga dafa wax ci xam nga dafa wax ci ñun baax. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak santam mënumaa ñàkk wax nag ndax ki ngeen fi fekk ak ki ngeen ko teg ci loxoom tey si tey dafa doon ci ñun koo xamante ne vraiment ku sori ci ñun ndax euh, nee nañ kër jigéen moom defar kër jigéen tamit mooy yàq kër. kii nag tubaar fakala macha allah nekkul seen teewaay moo tax mooy wax dama wax te yàlla rek moo tax kii makkumba toogul ci kër gi xamul dara lu xew ci kër gi fii gan bu fi ñëw liwiis mooy dalal tey si tey li am na nu mu doon mel man mii jarbaatu makkumba laa mais mën naa fay ñàkk a ñemee toog keneen ak keneen kër gi am na ñeneen ñi fi ne ay étranger ñoo xamante ne tey si tey bu ñu toogoon mënoo wax kii ci kër gi la dëkk ak kii dëkkul ci kër gi tout tout ça c'est à grâce de lui que nag nit doo bàyyi ba mu dee nga doog a taxawale mas euh, euh, mara daytaali nga doo doog a taxawale ci biir mbooloo mi naan yi ma naan nit danga ko koy waxal mbaaxam ca ba muy dund ku dul gërëm nit nag doo gërëm yàlla mokkumba nit ku baax la nit ku yaatu la nit ku bëgg askanam la ku fonk cosaanam la gom lu mu doon mais rawatina nag jàmbaar ji nekk wetam muy ma le maire muy Louis Louis Senghor mais nii rek la mën a mel ndax nag nekkul dama koo xam moom donc mais damaa dem ba seen biir kër xam ay rakam xam ay magam xam tamit ñi nga xamante ne ay kilifaam ñeneen ñoo xamante ne moom mii toon sax xam naa ñooñu. Robert bu muy wax nii ba muy bëre seetaan naa ko bataay Robert daa wutoon lal suuf kon donc lu mel ni tey si tey bu duggee ci biir kër gi am na nag ñu ma gën a yeeyoo fii place bi ma toog mais xëy na jarbaat moo doon dondu sax nijaayam kon donc boo gisee mu woo ma fii xëy na peut-être xeebu ma ginnaaw xeebu ma nag man tamit su ma teewee rek euh, wax dëgg war naa wax li nga xamante moom laa xam ci moom te di te ñaanal tamit. digganteem ak sama nijaay suñu borom di ci rataxal rek lépp loo xamante ne lu nar a yàq la yal na ko yàlla suñu borom xalan mu dem ci àll njaboot bu fi am tamit yal na ko yàlla suñu borom barkeel di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram yéen ñi tamit vraiment maa ngi leen di euh, jaajëfal bu baax a baax ndax nit ku la xeebul moo lay tudde yéen yi seen diggante yàlla na ko yàlla suñu borom rataxal yal na bu noonu mën a mën a dugg seen diggante waaw ah li ci gàkk tamit ci man la mais lu ci jub ci suñu borom la waaw jërë jëf. Ah, si kanam si kanam drapeau bi bu ko dal voilà li voilà. nañ koy defee arène ba voilà. jël leen drapeau bi. italien yi mu dugg. ci ginnaaw ah. sama bi ngeen di def waaw kon daa mel ni mbir yi nii la demee remise de drapeau bi ah c'est madame Diouf Louis Senghor yaakaar naa ne euh, faaw nga làkk italien nag bala ñoo kii de. boo sa mbokk italien parce euh, Ndey Fatou. diaspora bi ñoom yëpp maa ngi leen di nuyu. diaspora bi mhm, yëpp maa ngi leen di nuyu. Mhm. ñoom Ndey Fatou Aïssatou ñoom tonto Sarr ñoom yëpp maa ngi leen di woo ci lamb bi làmb bi nag delloon naa ko aussi waa diaspora bi Italie fépp dal maa ngi leen di nuyu. day faatu xalifa mbooj samay frère la lañ ñoom itam maa ngi leen di woo ñu fekkee si bés bi walla ñu yónnee <laughs> <laughs> kon nag gars yi di wax ne jib defe naa ne affaire bi kon bés ba euh, direct lay doon de. waa di woo ñëpp waaw en direct la Lutte TV invité nañ site internet bi yëpp nag comme nuñ ko waxee ñu ñëw fekke mais làmb ji en direct la Lutte yi waaw ñëw ko dégg bu soobee yàlla waaw. am na solo waaw di leen wax ne am nañ signature suba bu soobee yàlla à partir de dix heures arène waaw. am na solo taxawal